di fàtta bu ñëw ci sama seen youtube bi maa ngi ñëw tey ci samedi mu nekk championnat Angleterre diggante Southampton ak Chelsea Chelsea nag moom moo déplacé wu dem Southampton mu nekk match bu difficile ci Southampton te Chelsea dafa ñëw ak doole ñëw wone seen bopp international sénégalais muy kan Edouard Mendy moo nekkoon ci camp yi mu nekk te match boo xam ne nii attaquant yi wane nañu seen bopp ñu ñoo ñëw football ci kaw Southampton dóor ko six bisa à zéro mu nekk lu métti ci Southampton mais tey Chelsea dafa ñëw yeewu nañu ñëw nañu ak doole ndax ñi ngi jëlee défaite ci Ligue des champions contre Real Madrid mais tey nag ñëw nañu ak doole wane nañu seen bopp Chelsea mu ngi ci troisième place bi ci championnat Angleterre Mom lañ leen lon tay ci dimanche diggante Southampton ak Chelsea Southampton mom mo dalal Chelsea mais Chelsea moko mujjé mujjee 6 six buts à zéro mu nekk lu baax ci Chelsea gëna a assuré wu ci troisième place bu mu nekk buñ fa joggé dañuy dem ci championnat Espagne digënté Getafe ak Real Madrid. championnat Espagne digënté Getafe ak Real Madrid Real mom mo dalal Getafe ci kërëm buñ joggé ci Ligue des champions. diggante ñoom ak Chelsea te nag ci samedi lañ dalal Getafe seen kër mu nekk match bu difficile ci Getafe ndax jéem nañu puus nañu dara doxul te nag dafa ñëw ak forme kan moo dugal seen bii bi mooy Casemiro boo xam ne ni milieu terrain bu amul fenn ak Lucas Vazquez boo xam ne ni à tout moment moom tamit day def différence te nag dafa ñëw ak doole wane boppam gën a première place bi gën foo toog bu baax te nag wane nañ seen bopp buñ jógee ci Ligue des champions ñi ñoo nag def changement mu permettre Real mën football facilement ci kaw Getafe moom lañ leen indoon Real moo dóor Getafe deux bisagères. à zéro mu nekk lu baax ci équipe Real Madrid man laal seeni Alamouta Sport bu leen di fàtte abonné wu ci sama seen YouTube championnat Espagne dañuy dem ci championnat France mu nekk diggante Clermont foot ak Paris Saint-Germain te nag ñaar star yi ñoo wane seen bopp mooy kan Mbappé ak Neymar Mbappé dugal 3 bi Neymar aussi mu dugal trois bi international sénégalais muy kan Idrissa Gana Gueye mu ngi ci biir te nag Paris Saint-Germain moo ñëw jekku Clermont dóor ko 6 buts mu nekk lu baax si Paris Saint-Germain day gën a indi forme bi ci équipe bi. équipe Paris Saint-Germain boo xam ne nii ñi ngi tabax mais aussi ñi ngi defaraatal seen équipe bi te nag international sénégalais muy kan Idrissa Gana Gueye nekkoon partant mu nekkoon ci milieu terrain bu Paris Saint-Germain. mu nekk lu baax si moom day gën a amaat confiance moom Idrissa Gana Gueye moom lañ leen indiloon tey ci samedi mu nekk championnat France diggante Clermont ak Paris Saint-Germain.